man Sonko euh, ak ñàkk a maandu fës lool ci saw taxawaay ngay weddi ngay weddi loolu moom say waxi bopp la Babacar loolu say waxi bopp ngay ngay weddi li aji wax euh, mel ni yaa fekke woon euh, diggam ak Ousmane Sonko mel ni yaa fekkee waaw yow fekke woo man fekke wu ma juge ba sax fekkewul xam nga liy dëgg mooy que ni ab juge sax day toog di xalaat ci li nga xam moom nañ ko jox mais li xew Sénégal yi amul benn juge bu ko fekkee maag George mi buñ jàppante woon fii ci studio bi demee ca bi day wax ma wax ñu wuti témoin ku ci nekk ñu dëgg la nga wax ñu xool lu xel mën a nangu loolu mooy àtte du leneen bu ñu réyal mbir mi man la ma waxoon ci Sonko Adji Sarr tey laa ko gën a wax tey sax laa gën a gëm ni la ma doon wax yàlla moo ma doon inspiré pour ma wax ko parce que fee wane na la ma doon wax dara te teggiwu ko ñun danoo analyser li xew gis ay PV yu senn am ñu doon wax naan lii du PV yi PV yooyu sax dàq nañ ci ab cap euh, ab capitaine wax ne waru ko woon a génne PV yooyu mooy PV yi même ci c'est à titre de renseignement mu leer nañ ne ay tappale moo lal dossier bi musuma gis ku ñuy violé ngay ngay waajal sa viole ñu laaj la ci biir enquête bi nga ne maa ne sama commenceuse génnal saal bi puisque mu génn mu leer nañ kooku ku ñuy viole doo ko waajal viol dam bett ñëw jaay la doole kon ensuite waroo ci wax ji bu waxee tey lii bu subaam wax lee juróomi yoon ba tey mu xoolal ci interview RFI bi ak euh, Le Monde ma ciy profité di wax ne waaw mais ñun suñu journaliste xam nga ne Georges mii tey bu mënoon a jot ci Adji Sarr andi ko RFM matin da koy da koy def Georges eh, moom kenn mënta jot ci moom yow ay ay journaliste mën a jóge ci bitim réew ñëw ñu waa GIGN xaja xajal leen ñu ñu interroger ndaw si loolu est-ce que journaux euh, sénégalais yi mën nañ ko donc il faut ñu respecter nag ca campagne de propagande non campagne de propagande boobu ñuy def au plan international nañ ko arrêter le Sénégal est un souverain même sekkente ne dañoo am njiit yoo xam ne gëmuñu seen bopp ñun peuple bi ñun daanoo tet nous sommes souverains ñun loolu lañ gëm kon nag dossier boobu moom la ma ca waxoon laay waxaat ay tappalay kesee ko lal néew ma lii am naa lii amul mais viol bi ñu jiñaate ku xool li ci biir dossier bi xam ne ay tappalay kesee ci ne. jërëjëf Dame Mbodj euh, porte-parole coalition le peuple coalition citoyenne nekk itam njiitu seen jàngalkat bi ñuy wax. Euh, euh, QCM e authentique ñu yendu ak jàmm ñu ngi ziar Fatick.